ñépp di leen ayibal bay tekki seen der yi lu bari ma ne mënuma ñàkk wax li nit ñëpp di wax de di ko ñaawlu waaye nag du ñoom ñoo ko jëkk a def ndax ñi ñi ñëwoon jël fii Serigne Touba génne ko ci ak njabootam ak i bokkam ne meng ak moom di ko jéemal lu nekk di ko teg lu ne ci daram bi ba kenn bëggut a bokk rek moom bi ñuy ñëw fii ci réew mi ci gaal yi dong lañ jaar te amuñu woon wenn këyit wu leen may ñu dugg ci réew mi kenn deful leen woon këyit bu ñu fi ñëwee kon tooñ giñ ko tooñoon genn tooñ mënu koo weesu ci biir loolu itam ni ma ko waxee ñi nga xam ne dañu doon wut lu ko neex ndax bëgg darajey àdduna ñoo walbatiku teg yiñ teg ci ab daram ba waral bisub keroog nii ko sëriñ Mbut Ndour waxe mu am kookee taxaw ne kookee day lu ngeen ko tuumaal lu dul yàlla la fa teg ci kanamam def ko muy boroomam mu fas ku yéene jaamu di ko jaarale ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale Seydina Muhammad lu ngeen ko tuumal lu dul loola day wérut ñu ne ko yaa ko wax de mu mu mu fab e, garante ko loo xam ne loola dong mooy la la la la amoon boo wax loolu rekk amoon muy manto manto ak ku ñu fal moo koy moo koy sol mantom bale fab ne sama manto bii lay koy garante su ngeen fa gisee lenn lu na mel ci ñu koy tuumaal ma ñàkk ko tey te dutuma ko soxla loola yàlla fekk na lépp xam na ko waaye sëriñtuwaay itam xamoon na ne lañu wax ne moom la denc ci kër gi dara wéru ci waaye daa sëñ te weddi waaye na bàyyi ñu weddil ko booba maam Cerno ngi fi bu ko weddi loon ñu ne mënu koo seere ndax seere dañ cay bañ ñaar koo mas a defal lu baax fu mu fekkee sa mbir lu la ci génne dong lay wax koo mas a jaaral feneen tam fu mu fekkee sa mbir lu la ci dugal dong lay wax sëñ Mbàkke Busu mënu ko woon a seere sëñ Abdourahman mënu ko woon sëñ Mandumbe mënu ko woon sëñ Masamba Jóob mënu ko woon kenn mënu ko woon Cheikh Ibra Fall mënu ko woon waaye moom ma nga xam ne moom la yàlla yabal yàlla moom jamono bu nekk day am ñu muy yabal fi aw nit ñuy wane fa yoon wa nekk ndax ñaari doomu aadama ya suñu borom baaxooñ la yabal mu wan ko ne ku faatu dañ koy suul ca la yabale seen maam yéen ñii ñenn ñi mu doon ci ñoom lam doon ci ñoom yàlla yabal ko mu dikk garanti fa mantoom yàlla may ko sa ndam kon bisit la boo xam ne bisit la boo xam ne bii jullit yépp bu fekkonte ne ka doon tuumal Serigne Touba nekku fi ba tey nga xam ne moo fi nekk te tey la gën a bari doole su dul woon ak loola Serigne Touba di ab dëkk ci réew mi def sénégalais di wax waxi sénégalais yi diggante digganteeg sénégalais yi ñu teg ko tuuma ju ni mel ci biirum njabootam ci kanam sénégalais yi su fekkonte ne ñooñu nekkuñu fi ba tey ji bis bii dañ koy jàpp di ko jàngale ci daara yi yu mag yeeg yu ndaw yëpp di wan nit ñi ne leen dëgg rek mooy jëkk mooy mucc ak lu néew néew doole. kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di ndokkeel ci bis bi bu baax a baax a baax a baax di am nag li gone yi di wax problème seen diggante ak moom ndax looleekat kat ku la ko lebal li li dal nit rek moo lay dal nu may def ak moom bis bu set la ko tàmbalee ci sëriñ Modou Moustapha ba léegi si kenn ku ci nekk mi ngi mi ngi yóbbaale mi yóbbaaleel na leen baat boobu ñuy wax problème mooy lu nu may def ak yéen ndax bur lu woon ak bur siin keroon na muy demee nga xam ne Serigne Touba yëgoon na bis boobee ba tax mu taalifal ko xasida goo xam ne loolu dong nga tax mu taalif ko jox ko nit ne ko buñ buñ ñëwee nanga koy jàng ka jàngaat mënoon naa mënoon naa jaar yoon yu baree baree bari yu mu weddee yu mu ko dindee waaye ci seen maam la ko yàlla jaarale kon na ngeen xam ne mbooleem ñëw wutu Serigne Touba ba tey jii ba ci alaj bara ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ma ngay wéyaale ci yéen loo xam ne xamut nu muy def ak yéen ndax loola kenn mënu ko woon a def kon ni jamono demee rek la waaye pas-pasam moo doonoon jóg ak i tànkam ak mbooleem waa kër Serigne Touba yëpp ak jullit yépp ñu ñëw fii yandu fi wan yàlla yàlla gis na lépp waaye ñu feeñalal ñi nga xam ne xamuñu woon ne dëgg rek mooy jëkk te mooy mujj te ña daje woon ak moom kat seen maam jooje ñu ne gàññ lañ buñ tollut ab lim nañu daje woon ak Sëriñ Tuubaa itam lim bu takku la ñuy doon waaye kenn ku ca am bis bu ñuy màggalal bu ñu koy màggalal fii fi Tuubaa moom kenn amagu ko ci te yaakaaruma ne keneen dana ko ci dana ko ci am ndax loola weesu na altine altine jenn dong la jeneen ju ñëwaat jeneen altine lay tuddaa mënees naa dem bañ dabaatal ñu bari nag waaye moom dal yàlla may na ko ko moom te booba jafe woon na li nga wax nag ne bu ngeen ko fekke woon yéen ñëpp da ngeen di takku fu dugg ngeen dugg fa loola weesu na ay wax ndax euh, jamono dox na ba yéen ñépp ngeen xamee ko noona takku bokk benn xalaat ak bàyyi seen yitte def la leen Serigne Touba sant doomi Serigne Touba sant leen ko ñu Serigne bu Mbacké ne kuy jeex ab caq da ngay dem fa mu réere loolu lu wér a wér la te moom sañ na ko wax moom Serigne Saliou sañ na ko wax ndax euh, sëriñ Touba wax na ci riwaayaat yu wér ne moom Saliou sama dooma tax na sax këram geefa mbuur Serigne Modou Moussa Mbakke moo ko ne nee ma maag yow bokk waaye rek ma jox la sama kër gi mu ne ko maag yow bokk waaye mu jox ko ci saas kon su leen tànnalee barab bi te fekk waa Bawol dañoo waroon su fekkonte ne ngor mi ngi am ba tey dañoo waroon sa bis bi dikkee mbooleem ku nekk bawal bàyyi ay yiteem jaay alal ju bari wër fu si nekk ci kaw suuf mu dem ba àgg fa ne leen jërëjëf rek wàññi ko waat jaroon na ko waaye bi ngeen jël si waatee Tuubaa dolliwaat ngeen xarmi kawar dolliwaat ngeen ñëpp problème waaye sëñ bi moom xamut nu muy def ak yéen te koo ne xaw ma koy def ni mu la defa tax waaye da leen di bàyyi ak Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la seen maam ja àndaloon moom la seen maam ja seere woon seereem soosee muy dund ba tey te kat ña ci féete woon ak tubaab ba te di ay bokk bokki sénégalais ak tubaab yi seen bopp kenn xamatul fuñ mujj am na ca ñoo xam ne ñi gis gis ko bokk ak ñoom dong jafe na dañoo nax saa yi aw aw niir kon yàlla moo fi nekkoon démb moo fi nekk tey bu ëllëgee moo fi nekk ku bëgg buñ la ba ma xetoo daan da wéeru ci yàlla kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di bàyyi ak sëriñ Touba lii nga wax ne moom la ab séeréer bëgg nag yaakaar naa ne ñëpp ay séeréer lañ kon ñëpp ay séeréer lañ lii nga wax itam danañ ko jot li fa sëriñ ba mu jot li ko ñam ko war a jot yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp yàlla nañ ko fekk ay déwéni déwén te kenn ku ci nekk di yëg sa bopp ak yokk ak ug wér ba li nga xam ne dañ ko fi taxawee lépp te muy jóge ci yenn yenn jiba yi suñu borom defal kenn ku ci nekk man koo xam ne suñ ca àggatee par kenn ku ci ne dana ko mën a sasoo def ko na ko bëggee yàlla nañ ci tase ak ngërëmul Sëriñ Tuubaa te ñun ñëpp ca kóllëre googee nga xam ne du fecc ko mukk ñu ngi ci ñaan ngeen ñaanal Alaaji Mouhamadou Lamine Baara suñu boroom dimbale ko ba mu mën a def lu bari ci lim yéene ci liggéeyal Serigne Touba jàllale ko yéene mag ña ak seen jëf yañ tàmbali woon te ñun ñëpp bu soo gis ñu ci ginnaawam asalaamaaleykum wa rahmatullah